حمد لمنزل دنا وداي ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل waaye eh, di sant rek. Hmm, sant sant ñaan yi daal. yëpp gis nañ ko de. Hmm. <laughs> li li li ñaan ngay ngeen dolli rek. waaye tubarkàlla. tubarkàlla. dëgg la dëgg la. dëgg la dëgg la dëgg la. dëgg la moo tax day tubarkàlla. alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax. di ñaan moom balaa màggal ga rek. kenn du wax loolu rek. <laughs> lan laa na màgg waaw moom de mën na ko. Ah, waaw da ngeen di de. waaw dëgg la wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. ñu ñaan rek. waaw ah, jërëjëf ñaan rek ah, mm-hmm. ñoom ñi nag daaw. Mm-hmm. xam nga ñoom ñaan ak professeur Lamine Gueye. Mm-hmm. ñu doon saytul comité d' bi. lépp lu jëm ci wàllu kër docteur yi. ngir jàngoro ji ak yu mel noonu. xam nga ñëwoon nañ fi. nga ñaanal leen. suñ borom suñ borom may leen ki ndam loolu nag mm-hmm. lépp di ci sa barke mm-hmm. ren nag ñu ne mën ñoo tàmbaliwaat dara mm-hmm. faaw ngi dikk ba ci yow yeesalaat ndigal li su ko defee nag soo ko dem tàmbali liggéey ñoom ñii ñëpp nag sëñ bi ñoo ngi liggéey ci li ñuy jàppale commité d' organisation bi ñoom ci wa wàllu docteur la seen maj léegi nag mu ngoog moo tax lépp lu ñu defoon daaw te nga ñaanaloon ñu te sa barke yi taxoon yi ñu am ci ndam mm-hmm. loolu dañ ko bëgg a reconduiraat mu gën a yokk sax loolu amoon lépp te biir lii xew it liggéeyoon nañ ci bu baax ci ndigal yi di gouvernement bi di wax ak yi docteur di wax ak soreele beeg mask yeeg gel yeeg ren nag lii lii ñu ci yokk it mhm. gëstu nañ ko te buñ sañoon it waxtaan ceeg askan wi mooy mbiru vaccination yi ah, loolu moom ñii ñëpp seen xel dafa màcc ci ah, loolu waaw léegi nag ñu doon jël si ndigal surtout jël si ñaan daaw ñaanaloon nga ñu ñu am ci ndam ci li ñu liggéey ceeg Serigne Cheikh Abdou mi ak comité d'organisation bi ñuy sàkk si waat ñaan ak ndigal ngeen liggéey bi bu baax ngeen taxaw yàlla si ñaan si dëgg la xam ne dañ koy wéetal rek. ndax dañu ñaan ci barke sëñ bi. ko. dëgg la miin la tëral. dëgg la moom la la ci ñaan rek yàlla mën na ko. miin dañuy wéetal yàlla te doole sa. waaw doole sëñ bi ci ñaan ci barke. waaw yàlla rustu ko rek. jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf. wéetal yàlla. te ñaan ci barkeem. te ñaan ci barkeem. wéetal yàlla delloo sa ñaan ci barkeem. waaw ndax waaw. léegi ñëpp toog gaa yi ñu sant yëpp yéen a yëg ko seen. sant mooy taxawaay bi rek ñu ngi sant ci taxawaay bu baax a baax. tabarakallah. waaw jërëjëf jërëjëf wax dëgg yàlla. waaw tabarakallah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. amiin amiin amiin amiin حمدا لمنزل لنا البلاء dañuy sant rek ci liggéey bi ñu am chance doolaat ci suñu loxo ci ci sa coordination parce que unité bi moom léegi mook euh, comité d'organisation bi ci biir la ñu nekk yàlla def nag ñu am xeewalu ñu dénk li ñuy wax alerte ak prévention loolu moom fu ay millions di nit di tase yaakaar naa am na solo lool ñoo xam ne yàlla may na leen ci xam-xam yu tuuti ba pare surtout ñu nekk ay taalibe engagé wu li euh, décidé liggéeyal sëñ Touba ci màggalam bi ci màggalam gi ak ci communauté bi léegi nag lépp lu ñu defoon daaw yéen ñu ñaanaloon sëñ bi jox ñu ci ndigal ñaanal ñu yàlla defoon amoon nañ ci ndam ñu yéenewaat euh, loolu ñu ci defoon daaw li ñuy def ren ëpp ko taxawaay buñ ci amoon daal ñoom ñii ñëpp taxawaat nañ ci partenaires yi ñu nga xam ne ñoom lañ doon liggéeyal ndool daaw ñoom ñëpp joxaat nañ ñu seen engagement ne dañoo bëgg a taxaw ci liggéey bi léegi nag euh, dafa taseeg ren encore lii xew te daaw xewoon na waaye eh, ngir eh, suñu boroom ak ñaanu sëriñ bi gis nañ ne màggal gi amu ci woon benn impact walla benn njeexit loolu nag am nañ ci yaakaar ren moo tax ñu seeti woon sëñ bi pour mu ñaanal ñu ci joxaat ñu ci ndigal ci lii xew nag daaw yaakaar naa stratégie bi amoon na ci solo comité d'organisation bi ñu jàppale woon bu baax a baax ñuy sàkku yet ci yow mi président bi comité bi jàppalewaat ñu xam nañ ni sax loolu moom daanaka am na ba pare ñu liggéey woon ci liggéey bu rafet ak yow mi ko jiite liggéey ko ak sëñ Cheikh Abdou sëñ Ousmane di jàppale woon nañu euh, ci loolu lépp luy ndigal lu gouvernement bi joxe dañ cee bëgg a jàpp liggéey koog nag waa ministère de la santé ndax ñoom ñoo yore loolu ñun dañoo nekk ci biir communauté mouride bi jot ci ndigal waslu ci àq moo ñu war liggéeyal ci sëñ bi ci loolu nag ndigal yi li ci ëpp moo solo mooy loolu ñuy wax mesure barrière muy masque yi di gel yi yokk ci li ñuy wax distanciation sociale yàlla def na ne li muy doon yëpp ay millions nit distanciation sociale mën naa am stratégie bi ñu tëraloon daaw indi na ko parce que fexe woon nañ ba fépp fu ñuy ziyaare nit ñi jël seeni mesures waaye it bañ a tàncaloo te loolu distanciation sociale la ñu ñu de euh, àdduna di dox ba ren leneen dugg ci beneen moyen prévention muy lii ñuy wax ñàkk yi loolu nag ci suñu euh, kuréel gi am na ci ñoo xam ne it ci loolu la leen yàlla may ñu gëstu ko lu qui fait que loolu it bëgg nañ cee liggéey wax ceeg askan wi noo xam ne yaakaar nañ noonu mën a wax noonu lañ ci mën a waxee ñoom ndax euh, seetlu nañ ne ci mesure prévention yi gën a am solo la bokk waaw loolu it ñi sàkku nañ ci ndigal sëñ bi sàkku ci ñaan di ci ñaan yit njàppale ba ñu mën cee wax ndax lépp a ànd rek mënuñu wax ne li gën lee mesure barrière yi ci la ñàkku yeeg vaccination bi ci la lépp daal ci la ñu fas yéene ci liggéey nag bind nañ plan d'action bi nag ba mu taxaw xam naa dinañ ñëw partager ko ak comité d'organisation bi parce que loolu mooy voilà altine sax la <laughs> waaw sëñ Abo woon na ma comme ça ñoom itam ñu xam li ñu nar a def euh, xelal ñu ci ñu soog a commencé nag def ay jéego dañ ne woon nag balaa ñuy def benn jéego ñëw ziar sëñ bi seet si la ànd ak sëñ Cheikh Abdou loolu mooy suñu tànku tey ñoo ngi sàkku ñaan daal waaw kay. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di delloo am bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ci li weesu ak ci li egg seegut euh, li ëpp solo nag ni ko sëriñ Abdoul Ahad Mbacké waxee léegi mooy laata ngeen di def dara dem ngeen ci. Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy fii Serigne Touba te di boroom digal li te lépp ne ci loxoom dem laaj ci moom digal ba mu jox leen ci digal yee salaat kon ni mu leen ko joxe woon daaw wóol bi di ko ñaan ci soññee te kàddu yi sëriñ bi wax léegi ne moom la wax doy na sëkk mooy doyloo loo yaakaar yàlla te doyloo loo Serigne te jéem a sàmmonte nag li nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen la suñu borom dénk loolu ni ngeen jàpp ni ni la war a deme ngir nit ñi mën cee mucc loolu euh, moom war na ne ci misaal ndax ku ne xam na Cheikh Mamadou Mountakha fi mu toll ci diggam ak boroom ku ne xam na fi mu àgg ci wakiilo hmm. ci loo xam ne ñun ñi ko xam démb xam ko tey xam nañ ko xam ne moom mm, dundu dara lu weesu li suñ borom santaane ci moom waaye ku nangu dogalu yàlla hmm. ba tax sabab sax euh, lu ci ne fa ko yàlla yemal rek fa la ci yem ba ci lii mu woote woon bu yàggut yëg-yëg bi mu ci amoon ak lam ci wax waaye dégg ngeen kàddu yi mu wax bi mu ko waxee bi ne ginnaaw suba la mu ne ma ñaan gi ñuy def kat dañ koy def lu dellu ci yàlla tuub ngir yaakaar yàlla waaye nag luñ ko dara ci ñaan gi ndax suñ borom moom moo yor kattan gi moo yor coobareem buñ ko xasee ba ñaan nag li des dañ koy bàyyi ci coobaram bu fekkee maye na ñu sant bu fekkee mayewutit ñu xam ne loolu mooy li gën ci ñun ma ne ko loolu da mooy baytu Sëriñ Tuubaa wax ne yaa rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta farida wa sabru kon mu dëpp baytoo kon moom lépp foofu la ko teg kon nag doon na sëkk misaal ci képp koo xam ne yaakaar nga Sëriñ Tuubaa wala képp koo xam ne ab jullit nga wala képp koo xam ne ku dëkk ci réew gi tey xool nga xam fi mu toll ak ni mu doyloo yàlla ni mu gëmee Sëñ Tuubaa ni mu doyloo borom ba noppi wëlbati ko masque yëpp mu di ko jëfandikoo ngir wane ci aw yoon loolu nag bëgg dimbali nit ñi tax mu di ko def boo doolee ci waxi Sëñ Bay Jaxate dafa am ñaari jënn bu xal asqal la si ak wa sëyu jënn bu xal atqal la si loolu mooy li sëriñ ba jaxat di wax nan euh, kiy daw kiy daw lu bon ak ki lu bon di daw mooy ñaar yooyu wasay mm-hmm. jën wasay jënd ba ak yetta jënd ba mm-hmm. mooy loolu kii daw lu bon nga njëb murit la bu yëggagul mm-hmm. waaye nag ki nga xam ne daw na bara moom ñaan lu bon a koy daw daa cee ne bul déggi nag wax ji ma wax tax nag nga naan yónneen da daa musloo ko daw laajoon lu xew loolu mu daa musloo ko dafa daa xamal xeetam bi mhm. waaye juddóoru ji fu mu war di am mhm. kon sëriñ bi bu ngeen gisee lii mu di ko def mhm. mooy day wone nit ñi fi war a jaar te moom loolu responsabilité ma ndax ku fi mas a nekk di Sëriñ ku ne Cheikh Abdoul Ahad am na kàddu yu mas a yëkkati jëme ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi waaye ñoom doon waxal ci biir wax na ne ne responsabilité am diggam ak Sëñ Tuubaa ci lu ko Sëñ Tuubaa woon kon képp ku fi nekk di Sëñ Tuubaa lépp loo diggal nit ñi rek loolu laay diggal ci ñoom loolu te topp ndigal li ci la njariñ li ne kon nag loolu nit ñëpp gën a góor góorgóorluwaat ngir xam ne ne bu ko sëñ bi defutoon te santaane ko it ñëpp war koo def ngir toppi ko ndigalam na rek mu di ko def ba noppi jiitu ca di ko tegtale te jublu ci daal lu may bëgg nañu sàmm te baax ki Cheikhul Euh, ak Cheikh Ibrahima Fall daana ko wax nee na Sëriñ Tuubaa nim ñu yare lépp lu ñu digale moo ñu ci jiitu hmm. bu dee jaamu yàlla moo ñu dàq jaamu yàlla moo tax fu mu ko mosaan wàcce ci liggéey bi mu koy liggéeyal mu ne ko yaa ma njëkk a xëy ci liggéey Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam te gisaguma nga wàcc ba ndëgg kon ñooñu itam foofa la ñu war a ne hmm. lii nga xam ne mooy li fi xew nag di mbas mii coobare suñ borom netti naa ko ba tàyyi mhm. ndax ci njaarim la ci sëriñ Tuubaa waxoon ba mu àndeek Tuubaa bi ànd ak sëriñ Balla Coro ba mu dikkee mhm. eh, di ko leeral fi situation yi toll fekk mhm. sëñ boo xam ne lépp sëriñ bi ne leen loo fi suñu borom wàcce la waxtu ko jeexalee dana jeex bañ jaaxle ba jaaxlaa ñu ne xëy na sëriñ bi dafa déggul fi àdduna toll moo tax bi Cheikh Mamadou Mountakha wootee am ñu bari di jaaxle. Mm-hmm. may leen jàmm képp ci topp. Mm-hmm. ndax màggal Tuubaa gi daaw. Mm-hmm. ba mu ci joxe ndigal. ñu bari jaaxloon nañ waaye jàmm ci topp. nit nag la la weesu nga jàng ci gémi ca. li ci ëssiw li nga ëssiw daa war a dara sama xel. ginnaaw bi tubaab bi ñëw bi mu dellusee di gën a leer sëñ bi sëñ bi bu tàmbuli rek sëñ ne ko xulinal mawtal la si tafirroona minhu fa innahu ko tubaab bi ne waxaat ki mu àndal ne ko teen koo gën a leeral sëñ bi ne ko ay namaatu kono yudrikum mat wala kuntum fii burujin mushayyada ba bis ak mu xëy wax ne yàlla suñu borom ma mi fi wàccewoon jàngoro ji xamal na ma jëlee na ko fi te dégg ngeen nettali naa ko fi daaw ci màgg bi muy jóg am na koo xam ne ku ñëpp xam la da koo dal mu as si fekk sëñ bi ci jàkk ji sëñ bi sëlmal ma ne ko maa ngi nii de wér waaye bu ma dee danga koy layoo sa borom sëñ bi xëy ci jàkka ji bis rek dem fekk ko këram ba mu ko jubee rek mu ne ko bu ma jege de ndax damaa pes ndax pes xam nga ne kooku ku ma mas a jege rek kenn dootu ko nettali waaye sëñ bi daay ñëw ba tiim ko jël loxoom teg ci boppam daal ko tàggale boobu fa sansa mm-hmm. loolee nag mm-hmm. moom foofu la àggoon mm-hmm. moo tax suñu kilifa gu baax ba Serigne Sox yi bu daa wax ne dafa am ci magi magi Serigne Touba yi kooku ma saa dina ko ah ñun magi taalibe yi dañoo amul jaaxle ndax dañoo gis seen ngeen fonk docteur loolu te ñu gis ne seen waaja ku ku bañoon loolu la mooy Serigne bi sëñ bi ne ko ah, moom de dañoo bokkut ak moom ndax moom de bu ma sànn jàkkaarloo bu wéree de danaa ko jàngoro bàyyil diw mu dem mu ne ko ku mënta àgg foofu nag ñu doyloo ko tey ñaan ci barkeem te leen di yebal ci docteur yi waaye dañ ñoo la fay jiitu waa kër Sëriñ Tuubaa yëpp si ñi xam ku ma sa wér di ci seen biir kër dañ la yebal ci docteur yi kon loolu cër la bu leen suñu borom jox fasalu ahli dikri in kuntum laa ta'lamuun moo suroon yi ñu bëri danañ ko firee ci anam yu bokkut waaye bari na ci ñoo xam ne wax nañ ne tàbbi na ci biir kon yéen itam li ngeen jàpp ne moo ci musle mooy yi ngeen wax yëpp di ay nattuwaay ndax euh, nit ñi itam léeg-léeg li ñuy wax tanaaxut da leen dal tanaaxut mooy contradiction ndax nu'minu bi baax di wa nakfuru bi baax di jooju alxuraan def moo leen dal bëgg gëm lii weddi koo xam ne bu sa bopp méttee boo demee si docteur mu digal la aspirine nga naan ko nga gëm ne dangaa war a wér boo si buro war a war a dem hôpital kon jàpp naa ne ñoom itam bu ñu xoolee ba gis ne lii moo ko mën a saafara ñu la ko waxee danga ko war a gëm ci ci nattuwaay te gëm naa ni itam sekkari suñ borom mi ci biir ndax yàllaa lañ si wàcc mhm. ci waxoon na ko yonte yàlla musa lu gudd lu wax jur del si waat mhm. kon daal ñi ngi soññewaat mhm. di rafetlu di sant waa comité bi yëpp ñi ko seq rawatina ñi nga xam ne ñoo ne ci bopp yi bàyyiwuma kenn waaye bu ma ci tuddee sëriñ Ousmane tudd ci sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi tudd ci sëriñ Cheikh bi ak yéen commission yu ko seq yëpp. Mm-hmm. mu mën a yóbbaale mboolem ñi ci ne ñëpp. Mm-hmm. di sant ñoom itam ci seen pësteef ak seen taxawaay. Mm-hmm. ndax lii ñuy def lu ci Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe ndigal ma leen ko xasee ba wàcc wax rek noppi naa ñoo ci def yitte daaw xam nga ne def nañ ci taxawaay bu mot sëkk. def ci pësteef ba ñu am ci ndam ginnaaw ñaaru sëñ bi. pësteef boobee nag xam nañ ne waxuma man sax waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi koy defal. xam ne pay gi ci loxo Sëriñ Tuubaa la ne mm-hmm. loolu rek dund mm-hmm. moo tax soxluñ ko ko xam soxluñ lañ ci def nit ñi di ko xam mm-hmm. waaye nag kañ ko seq di sëriñ bi xam na ko kon nag yàlla gën a defal kattan ngeen leen cee defal ndimbal ngeen leen cee defal tawfeex ba ndam yi ñu ci amoon daaw ren ji ñu am ko te gëm naa ne itam yàlla euh, la ma waxoon rek Serigne Saliou Mbacke waxoon ne ne yaakaar ju tas ñun yoon kër Sëriñ Tuubaa kon nag ñi ngi rafetaa njort te delloo delloowaat lépp suñu borom nag mi nga xam ne moo borom kattan gi di borom sañ-sañ bi te mooy def mooy dindi loolu it lu def rek moo gën ci ci nit ndax li wax ne ansa an takruhu shay'an wa huwa khayrun lakum wa ansa kon nag ñuy soññ bokk taalib yëpp ak bokk jullit yëpp jéem a gàttoon ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha li nga xam ne santaane na ko ci lépp ngir bëgg a sàmmoonteeg xam ne dañoo nekk ci biir réew mi doyloo suñ Tuubaa yaakaar ko xam ne mën naa dox suñ duggee lépp dëkk feek suñu nawle te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax ne ku la yaakaaru ku ne sam nawle kon ñi dëkkalu dëkk réew mi te bokkuñ luñ gëm itam war nañ leen a sédd ndax àq dëkkandoo def for dañoo bokk réew mi kon it ñuy sàmmanteeg loolu lépp loo xam ne ñëpp koy def ñoo koy àndandoo ndax euh, dañoo nekk ci biir réew mi nekk ci biir àdduna te mënuñoo beddiku ndax suñu saar yi na ko wax lépp loo xam ne day wan ne tubaa mi ngi beddiku ci réew mi rek nañ ko daw lépp ndax ndax neen Touba mooy xolub Sénégal kon ndegam mooy xolub Sénégal nag lépp lu ñuy def rek luy war a gën a jëmbal benn réew mi la ñuy def kon nag xalaat yooyu yëpp nag suñu jëlee fi dañ ko jëlee. kon ñu ngi ñaan yàlla màggal yi ñu dugg ci jam génn ci jàmm day ci tawfeex te suñu borom musul ñu ci. jàngoro ji bañ a law ndax xam ngeen ne jàngoro ji li mu yóbbu ci bakkan bari na. Mm-hmm. am na ñoo xam ne itam bu fekkente ne na leen jàll dana bàyyi ci ñoom jeexit. Mm-hmm. li muy yàq ci koom-koomu adduna ji bari na. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne jamono ji metti na ci nit ñi. te loolu lépp yokk na ci lu bari. jamono ji méttoon na mu ñëw dolliwaat ko. Oh. loolu lépp nag kon lépp luy tax. loolu gën a jeex ñépp ci war a góorgóorlu mm-hmm. def ci yitt def ci posté def ci taxawaay mm-hmm. te diglu leen ci yéen tam mm-hmm. te bañ cee jóge génn ndax loolu suñu borom leen ko jagleen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu biizni rabbina wa jaayi mustafa